ce qui s'est passé à Abidjan man ni nga ko gisee rek ci internet wax dëgg yàlla laa ko gisee man daal xam naa ni dama dem ñu woo ma en tant que citoyenne sénégalaise artiste engagée ma dem wax sur la condition des femmes sur le Suède à savoir l'autonomisation des femmes dividende démographique au Sahel ak thématique yi nga xam ne yëpp yooyu la concerné ak ay première dame mu nekk nag fierté ba ma demeet wax dëgg yàlla ma gis fa sama première dame mu nekk fierté ci man parce que man xam woon sax day gis Ouattara Dominique Ouattara qui est une amie à ah gis yeneen ñi euh, madame Issoufou ak ñeneen ak ñeneen parce que presque ñoom ñëpp samay xarit lañu. ma gis fa sama première daam nag dama gën a siggi parce que dama ne kii nag mooy sama njiitu réew. mooy euh, kilifa sama njiitu réew. mooy soxnaam. ma def li nga xamante ne ni nag mooy yoon. parce que ay satu nit da ngay siggal sa réew. da ngay siggal sa kilifa. kon je considère que man la ma def loolu mooy li ma war a def c'est une ah, te bu ma ko deful woon sax dañ ma war a ŋàbb wala ñu ba ma. nit ñi leen jaaxal mooy euh, ñëlee nga tàccu moom tàccuwul. Euh, euh, nga wax ba dem donc loolu ñëpp dañ jàpp na yéen ñaar ngeen am problème. amuñu benn problème yàlla. xam tudd nga léegi Dominique non non non Kumba nag nañ waxtaan rek euh, waxtaan bu bu dib daal. mais du sa xarit bi ngeen du ngeen ay copine. loolu tax xarit mooy ki nga xam ne da ngeen toog ngeen di waxtaan di naan te di lekk di naan di discuter. sequñu ko. mais pourquoi sequ leen ko yéen ñaar. mais parce que dañ koo sequl rek. xëy na wutu ko ma it wutu ma ko wala moom wutu ko bu ma woon man Sénégal laa dëkk citoyenne sénégalaise laa di dem di liggéey Dominique Batara bërki Dembo Ndiaye la ma woo ñuy ànd di liggéey may may liggéey ak moom ma madame Issoufou sama xarit la Mauritanie j'ai été au sommet ci sommet bi passé man ak Aïssatou Issoufou on était ensemble boo ubbee internet di nga ko gis parce que samay xarit lañu ñooñu dañ maa soxla di ma woo ma leen di jàppale man kuy dem bala ngay laax jaay da ngay laax lekk kon sëgëm ay jàmbur ñoo may woo ma leen di defal dara ci sama image sama tur mais asama ak sama sama sama première dame mu réew est-ce xam nga luy première dame première dame c'est pas n'importe quoi. c'est que même une icône. rawatina sam réew. kon da nga koy jox cër man sama fierté la su ma sama premier dame woowoon tey dama koy dem jàppale ba rey ci sama bopp parce que sama fierté la léegi nag bu ma woowul c'est parce que xëy na daf maa soxlaagul rek su ma soxlaa dina ma woo. mais sa mais sa côté sa côté tubaab bi a dérangeant parce que yow vraiment trop xam nga xam nga tubaab bi yooyu ngay gis vraiment première dame Marème Faye Sall euh, euh, euh, naanaan la mais sa choco choco yi ngay choco choco ak naan damay xaar ay kii ñu woo ma ak yooyu looy xaar ku la woo. ñun ñooy nañ fay dem ñu def ay affaire ah man man man mi maa war a jàng way wax ma dem way ko mais yow da ma jaaxal daal non mais Aïssatou man bu ma woowee ñu ànd pàkkar ñi mais bu ma woowee rek ñu ànd pàkkar ñi ndax si tànk yi nga teg sa robe yi nga sol ak sa chignon yi nga fa. mais je suis désolée je suis désolée si je fais un 38 quand même <laughs> je vais pas m'excuser parce que je fais du 38 <laughs> non mais Aïssatou su ma woowee ma dem te man première dame bi muy soog a nekk ci euh, bi président soog a nekk président man def naa lettre de. proposé ko samay projet am na ci boo xam ni Fatou Daniel Diagne mi laa dem ba ca bureau ba jox ko ko télé laa nekk. Mhm. ni ko damay liggéey ak yeneen première dame te bay ci say oom. Mhm. su ma naree liggéey ak jàmbur ma jàppale sama première dame sama image ngi nii lu ma ko ci mën a jàppale rek pare naa pour def ko fondation Servir le Sénégal bind lettre bindaat lettre bindaat lettre aw ma tontu waa léegi boo bindee bind bindaat amoo tontu doo arrêté wala da ngay di bind. mais ko. ah mais xaw ma ci dara parce que nekkuma ci secrétariat man li ma mën a xam rek mooy le courrier a été déchargé par et mes services non gardés loolu laa ca xam waaye léegi nag man bu ko jotee bu ko jotul man loolu nag wax dëgg yàlla du ma ko toppatoo. Champ des Linguères récemment bi ñu defee Champ des Linguères moom laa def sous son patronage de la première dame mu nekk marraine ma bind ko lettre tontuwul waaye amul solo xëy na daa amul jot waaye man mënuma imaginer ma def un festival pour les femmes jigéen ñi jóge partout en Afrique. dugaluma ci sama première dame loolu c'est ridicule loolu amul loolu amul sax pour man amul sens da ngay ridicule il faut nga jox ko cëram pour jigéen ñi voilà donc mais pour man man je pense que li am solo rek mooy euh, li nga xamante ni nii moo am solo mooy li ñuy retenir rek mm-hmm. man sama jëmmi bopp man awmaa kenn problème ay satu man fépp laa am jàmm mm-hmm. ah yëguma ko de du ma xuloo du ma xeex du ma coow ku ma tooñ nag ma defante kook yow. du ma bàyyi kenn mu may du ma bàyyi kenn mu may marcher sur les pieds. waaw wa mais Aïssatou koo yaakaar yàlla la yaakaar.